maman maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu leen balu àq leen baal àq yàlla boole jégal ah di ñaanal yàlla kii fi jóge amint Dieye. lan ci pap mi nga xam ne moom moo fi bàyyi ko. xanaa may jur papaam bi papaam di génn àddina nii mu def rek booba ñoom ñii tey nii lañu toll ma yore leen yore leen di leen fanaanoo ba ñu nekk magum jëmm moo benn doomu baayam man leen man da léegi mënatuma leen fanaanoon xaar nag ma wutal leen néeg ber leen si laa leen ber ñu nekk faak man nekk faak man ba kenn ku ne man takka soxna ñu takkal leen soxna a ah, nu di ma di leen yore di leen yore ba na di ñaan yàlla doon ñaan yàlla na papaam noonu la téel a génn na moom ma doon ñaan yàlla ne ah ndax yàlla bu ngeen dundee ba kenn ku nekk am sa kër su ma jógee ma fekkee màgga ndega ma fekk ci àddina ma dund naa nga ba sama yet wii bay papa xol la ma ñëw ci seen kër ya di yeen siyaar ak seeni jabar ah tey yàlla def lii ka neex metti na ma yaayam day jur la ma si ëppalee waaye man maa yor bëy na gëni kere ba moo demee sama kër la génne dem ba yàlla def lii mu def tey ba muy dem jot na waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moo di ci dem. naa waxtaan ak moom ndax dénku naa ko lool papa xool la boo yeggee réew réewum tubaab nga jëm ndegam yàlla yóbbu na si jàmm da nga góorgóorlu si jaamu yàlla di jàpp di julli waxtu yàlla wi te nga góor góorlu lu sa yoon nekkul bu mu ca nekk soo dundee bay yàlla jàllale la bay nga dem war liggéey ah nga liggéey tekki sa yaay ak sa jabar ak sa njaboot ci kattanu sunu borom ak mbaaxam. lii de laa mujjee waxanteeg moom yàlla ne booba na yàlla ne dootu leen gise wallaahi. yéegee xibaar bu tiis bi nga xam ne moo daal di sal seen kaw naka lañ leen ko annoncé rek. wallaahi waaw ah yàlla dogal ma mënuma ci dara dogal sunu borom baax waaw sama yéen ah, ah xanaa toog doo ñu naan gaal gi na. gaal ga réer na gaal ga réer na ba sama benn sët dikka daw dikka ne ma maam ma ne ah, ma gaal ga de teer na ma ne ko ah gaal ga teer na nga wax de mu ne ah, ma ne ga est-ce que bato foru ma dégg naa daay bato leen for ma ne ko ah gaal ga bu toogee weeru yàlla juróom benni fan de su ga teer mu ne ah ma ne ko manka dana am sa mool ya wallaahi si laa ko tàmbali jooy moom mii ndax moom wérul ba moo dem sax dafa wérul boobu méttitu ndiggal a yore nii mun ma maam bu ma yeggee ca tubaab ya xëy na ndax yàlla daañ ma mën fajal sama ndiggali wallaahi xam naa moo ko yokka tam sax wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi gaal bi réer na ay fan de temps que ñu leen di annoncé seen génn àdduna seen doom yooyu yéen ñi nga xamante ni yéen seen waajur naka ngeen ko doon dundee bi gaal gi réeree. Ah, xanaa naxar rek ak jooy rek man na naxar ak jooy daa yi ma suma waa kër waxee ma ne man papa xool la moom yaakaaratuma ko si àddina waaw xam nga fu moo téere waaye moom yaakaaratuma dina dugg a faas booy gi wallaahi moo tax deewam bettuma de xam naa ne bis bu ne maa ngi koy xalaat bis bu ne maa ngi koy xalaat ma lekk manuma naan ma dara fekk na fan yooyu sax dama feebaroon sama tas ma biir sama suukar si jàppam waaye bi gaal gi réeree yokk na jaxasoo xamatuma dara mënatuma lekk mënatuma xanaa tëdd sama néeg bu sama xel mi nekkee ci moom nag ma jooyo jooyo jooyo jooy ba doyal tëdd guddi sax duma ko nelaw ndax xalaat ka rek ak di ko xoole papaam xale bi dafa nuru woon papaam kese la nuru ci waaw xam naa papam am naa weeru yàlla ak ñeenti fan hôpitalu Dantec ba mu génnee àddina war dalu ma rangoon dañ ma wax ma leen yàllaa ma ko joxoon yàllaa ko yóbbu xale yi nag ma jël leen taf leen ci sama xol bi di leen seen papa te yàlla def nii manuma ci dara wallaay ah sët day wax dëgg yàlla ah nuru na papaam bu baax a baax de wax dëggin fa yàlla papaam rek laa ko daan xoole moom dafa bàyyiwul ci pàppa ji dara papa Kholla bàyyiwul ci Amar Seck dara dara ma Seck jur ñëpp papa Kholla moo ko ci gënul te papa papa ji feebaree daf ma ko daan dénku sama njaboot gi dencal dénk dénka naa leen ka sàmmal leen ma ne ko garde ba mu ne ma moom mii di papa Kholla sax yow dama la ko sax may sama doom jooju papa Kholla moom dama la ko may ma man ka boo ma ko mayee dama jël looloo taxoon nag moo gën ko taf moom ci sama xol bi yamale wu ma ko kenn ci àddina waaw yamale wu ma kaa kenn mosuma mosuma sama benn doom mosul def dara ba mu nangu nga wàññi ko déedéet suñu waxee man leen bu ko yar daal bàyyi leen waaw bu xale yi naan yow sama yaay yaa yàq papa xool yaa ko yàq wallaahi aa ah, xanaa wéet wéetal ma lool waaw wéetal na ma de wéetal na ma de ndax naa mi ba ma mi toon ci moom ah loolu la yàlla def sama yaakaar tas na ci moom bu baax a baax a baax wallaahi sama sut bi wallaay amin soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur la. Bintu mbay Bintu Mbaye lan nga ci Pape Seck mi fi bàyyeekoo. Pape xanaa baaxa sama rakk la suñ ñaar yaay bokk ndey xanaa baax rek lañ xam si ma wax dëgg yàlla yaru nangu liggéey jàpp boppam xeexul xuloowul demul fenn. yàlla nag dafa ma ko séddee woon ba mu tuddee ma doom waaw ak sama ay yeneen rakk yu bari sax ñu ñàkkandoo suñu ñëpp deseetuñu kenn mu nekk natt boo xam ne tamit yàlla moo ñu ko waaye tamit seetaan am na ci ndax xëy na bu ñu leen jàppale woon fii suñu réew dimbali leen bu dee metti it du toll nii. cosaan ci naka la ak fànn ko ndax ñoom bi ñu réeree weer ak juróomi fan un mois cinq jours état jugul kenn jugul xamuñu fu ñu ne léegi nag yàlla def jour bi ñi leen di gis ñoom ñëpp jeex nañ naa jekki ba yàgg rekk ñu ne feeñ nañu li manqué bare na nga toog say rakk ne si géej weer ñun la seer nañu waaye 38 personnes ñooy dund ci cent nangam loolu